li fi am tey euh, lu ñu metti la parce que bëgguñu woon mu demee noonu jàppoon nañ ni bi ñuy tabax bâtiment boo xam ne poste de police la tudd bu bees nga xam ne policiers yi fa nekk dañ leen fekkoon ñu bàyyi leen ci bâtiment bu délabré boo xamee ne bi nii daanaka dañoo joxe woon sax ndigal euh, war na mat juróom-ñaari at pour ñu daaneel bâtiment ba waa jàmm gën Sicap Mbao jàpp ni euh, commissariat bi kese doyul il faut ñu am poste de police fii parce que Sicap dafa soxla poste de police ndax dafay jege fora euh, ci ginnaaw aussi ñëpp xam nañ lu ñu boot lu faas sam-sam ñun ñëpp mun ngi dépendre ci benn post ci benn ci benn commissariat donc ñu def ñu commissariat bi engagement bi ñëw ñun bi ñu jëlee waxtaan ak ñoom ñooy leen dinañ tabax bâtiment bu baax bâtiment bi nag bu ñu koy tabax dañoo ñàkk ñu dëkkal de fi ñu toll suñu relais communautaire yi suñu euh, bàjjonu gox yi suñu ASC e yi suñu imam yi suñu délégué de quartier yi ñëpp soxla siège pour dem fa liggéey suñu association yi ñëpp soxla liggéey mais ñoom ñëpp ñoo bàyyi li ñu def yëpp na ma maire comme que yow da bëgg sécurité am ci dëkk bi demal nga tabaxal leen donc conseil municipal bi jàpp ci ñu leen di gërëm bu baax ak bureau municipal bi ñu lu mat 60 millions bu ah, manqué tuuti def ko ci biir batiment bi tabax ko ba mu yegg bâtiment nag boo ko tabaxee ba mu yegg ah, comme que ñun fonds yooyu ñu ko defee fonds yooyu dañu seet maire yi gën a leeral seen doxalin ci wàllu transparence ñu jox leen ko fonds yooyu nag bu ñu ko jotee ñun jàpp nañ ni war nañu rus tabax ab bâtiment ci alalu askan bi dem di rocceeku di ko génnee ñun kese di ko inauguré ñun kese dañoo woo acteurs yi nga xam ne ñoom ñoo ko moom muy conseil municipal muy ñëmalim yëpp ñu ñëw taxaw ku ci nekk am say représentant ñu wal leen bâtiment bi ne seen xaalis fii la jaar loolu dong ñun loolu lañ doon def signé kayit yi ñu xool ñoom ku ci nekk lan la yaakaar ni moo ci baaxul ñu yokk ci jox ko entreprise bi entreprise bu ñëwee rectifier loolu ñu jox ko nag euh, force de la police mu koon ne liggéey liggéeyam mais bu ñuy ñëwee bu ñuy ñëwee dem si guddi lañ ñu woo nañu noo y'a problème parce que commissaire bi fi nekk muy lieutenant Salégna dafa nekk nit koo xamee ne bi nii li mu daj ci projet bi ñun sax dajuñu ko si bi ma ñëwee fii même pas une semaine moo njëkk a ñëw sama bureau na ma maire am na lu fi xew mun nga kaa bañ a xam nag parce que mosuñu laa gis ci police bi pour nga am fa benn jafe-jafe parce que mosuñu la dégg ci dara mais il faut nga ñëw parce que police mi ngi waagi daanu suñu kaw te mënatuñ fa nekk ñun ñi assurer sécurité ñu nekk ñu en sécurité on déplacé a vu donc on ñu ñëw wax waa conseil municipal bi ñu voté budget bi commencé réalisation yi réalisation yi pas a pas amul benn bis boo xam ne lieutenant Séléña du ñëw foofu amul tamit période boo xam ne du ma ko laaj mu ne maa ngi def ay rapport maa ngi wane bâtiment bi ñu nekk risque bu mu nekk pour ñu ñu yor nga xam ne sawaratuñ sax parce que bâtiment day sawarloo ay nit buy liggéey ci benn bureau donc da kay sawarloo donc bâtiment bi nit ñi sawaratuñ ci c'est à risque ba ci biir ma ne ko damay kër man dem naa ba louer kër pour ñoom ñu dem ci kër googu pour bâtiment bañ a daan si kaw parce que dama waraloon nawet bi passé kon man kay bëgg naa nit ñi am jàmm donc ci jàmm jooju nag lañ leen wax ni ah ñun ne bâtiment bi comme que pare na parce que ñoom jàppoon nañu bâtiment bi pareegul léegi parce que seen i construction day gudd ci wàllu armée ak police ñu ne leen ñun suñu construction du gudd mënu wees fukki weer bi yi jeexee ñoom yëguñu gëmuñu ko bi ñu àndee dem saa yu ñu dugalee damay wax chaque jour fii ne le Sénégal lu muy def ko parce que mënoo nekk commissaire boo xam da ngaa nekk rek yor service pour la perception pour ñu jox ñu avance ñu commencé liggéey su avance bi jeexee bu ñu duwalaat mais Sénégal dañ leen wax envoyé leen affaire bi da koy jaral mu sol ay tànkam dem ba foofu kooku yaakaar naa suñ ko gërëmul tey xaw ma lu ñu xalaat de mais ko gërëmul wala ñu jël ci décision bi jël ci benn décision boo xam ne xëy dañ ko war a néewal doole parce que mënuñu ma commandé ñoom bu ñu meree amuñu accès ci man maanaam nekkuma ci seen ligne de commandement kon kon moo nar a fay ñu nekk ci bi mooy ñu nekkoon fii tey di daw suñu ginnaaw di ñu jàppale di ñu garder ñoom lañ bëgg a teg parce que coono bi si ñoom la ñoom ñoo buur seen bagage ñoo dabat ci guddi gi delloo seen i bagage ñoom lañ tëj fitna te fitna googu nag mënoon naa ñàkk moo tax mani population yi fi ñëw tey waroon faa teew seen place mi ngi woon foofu parce que xaalis bi yéen a ko moom man moom ma ci dërëm man lu ma mën a def tabax ba pare ne gars yi kaay leen tabax baa ngi nii yéen ngeen xool ne manqué lii manqué lii ñu mottali ko dem suñu yoon loolu mooy Diamaguène Sicap Mbao mooy suñu parti politique bu ñu yoree maire yi bu ñu demaat ba tollaat ci maire yi ñu wax ci leneen donc loolu moo tax ñu naqarlu le fait que adjoint au maire yi mayuñu leen ñu egg le fait que mayuñu conseil municipaux yi ñu egg ci bâtiment bi le fait que mayuñu imam yi délégué de quartier yi ndeyu daara yi nu jox yi ASC yi ñëpp ñi nga xam ne association communautaire de base yi ñëpp ñi nga xam ne tey amoon nañ warugar ñun pour leen lii lañ fi def man jàpp naa ne Sidiki Kaba dong la mën a doon ah ministère kay euh, policiers yi kay benn chef lañ am benn chef lañ am ak ah, fu mun jógee Sidiki Kaba la Sidiki Kaba nag man jàpp naa ni ah wax naa ko ci assemblée nationale nee naa ko man sama problème mooy am na ñoo xam ne kay war leen dénk ay forces armées ak ay ak ak ak police am na ñoo xam ne waruñu leen koo jox parce que un amuñu diggante boobu ak yeneen xeet yi nekk ci Sénégal deux aussi amuñu maanaam xol yu ubbeeku yooyu boo xam ne nit ñi am nañ si accès si ñoom donc loolu day tëj lu bari. te loolu baaxul donc jàpp naa ni police bi ma gis nii moom bi nekk ak ñun jàmm ñooñu politique gu ñu franchement parce que lu ñuy def pour man loolu kuy politique du ko def jàpp naa ni aussi ñun mairie bi politique parce que bu ñu doon politique dañuy tabaxal jigéen ñi ñu nekk ci biir di ñu way di ñu tàgg parce que ñooy voté man mhm. policier mooy voté pour le maire ils votent pas ils sont affectés ici donc ñun suñu action wér maanaam sécurité nit ñi seen dund ak bakkan raw ñun foofu la ñuy doxee même buñ ñu boteelul dañu xam ne ñu fi indi woon dem nañ moo tax politique gu moo tax démb bi coow li bëree ma ne man nekkuma ci schéma nekkuma ci politique combat bi mun a am ci wàllu politique ay parti lay boole mais état du xeex ak parti du xeex ak ay nit du xeex ak commune donc man état moo may fay commune bi man rek la fi état di fay c'est le maire seulement parce que le maire il est agent de l'état policiers yi aussi état moo leen di fay loolu kay mooy wan le maire c'est le premier agent de l'état c'est le premier policier c'est le premier magistrat donc dara am sama xarit yu maire yi su ma demee fële Europe fekk leen fa amul ngoon bu leen dul jox ay bulletin de renseignement ñu koy xool